nag bëgg nañu ñu dimbaleñ ci daara yi. sëriñ bi ne kon bëgg nañu dimbale leen ci daara yi. man ci dara la bàyyi ko. moom mii ci daara la bàyyi ko. sama baay ci la bàyyi ko. baayam ci la bàyyikoo. ay sëriñam ci daara lañu bàyyikoo. ay sëriñam ci daara lañ bàyyikoo. te njàngum daara. te njàngum daara kat. ak njàngum matt. ak njàng taal matt di jàng. ak alluwa. yore alluwa. leer ya cay bàyyikoo. leer ya cay bàyyikoo. mënul bàyyikoo ci pilim. mënul bàyyikoo ci pilim. mënul bàyyikoo ci électricité. mënul bàyyikoo ci taal électricité. mënul bàyyikoo ci kaye. mënul bàyyikoo ci kaye. ñu dimbaleen ci loolu. nañ ñu dimbalee ci daara yi. ba noppi nag kem talaay lu ngeen man ngeen dimbale ko ngeen dimbale ko ci ñaane daara yi. kuy dimbale nag nga xool sëriñ ba taalibe wër looy dimbale nga dimbalee ko ko. ànd ñu bàyyi leen la nga xam ne moom la seen maslaha laaj ca doxal seen daara ñu def. ànd ak nag ñu bàyyi leen lii liibar ñoom sëriñ saak taalibe ya la seen maslaha laaj ci ñu di ko doxalee seen daara ñu jox leen ca sañ-sañ ñu di ko def. bala ñoo soppi daara nañ fi génne dorog. waaye bala ñoo soppi daara nañ bala ñoo supprimer daara nañ supprimer dorog. bala ñoo supprimer daara ñi nga xam ne dañuy bàyyi ko ci àll ba ànd ak maladie boo xam ne bii mën na wal wàlle ñu arrêté leen. waaye bala ñoo supprimer daara nañ défendre maladie yi jóge ci bitim réew nar a alal doomu aadama yi. lii dey moom la wax man. nee na moom day lii la wax. Eh, te itam su ngeen seetee. te it nee na bu ñu seetee nag. su fekkee ne ay fen la man ruusuma ku ma ne Abdou li nga wax du dëgg. nee na bu fekkee ne moom daf ko wax te du noonu rusul ku jóg ci yéen ni ko Abdou li nga wax du noonu. su ko defee. su ko defee nag. asaatiida yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci kanamu nit ñi ñu di leen xamal diina ji. jàngalekat yi yàlla jiital ci diine ji def leen ci kanamu jullit yi ñu di leen xamal diine. ñu di ñu waxtaanee mbirum mag ñi fi nekkoon ak seen xam-xam ak ni ñu tëralee lislaam bu mag fi waaye bu ñuy wax histoire lislaam fii ci réew mi nañ dana ca mag ñi fi jiitu woon ci seen xalaat ak seen xam-xam yaak seen jëfandiku ya ba melal nu nii nu mel tey nañ koy waxtaane xañ nañu ay fuqaha moo ndax ñun yàlla daf ñoo xañ borom xam-xam yu jàng diine te dégg ko ndax yàlla xañ nañu ay awliya ndax yàlla xam nañu nag ay gaa yi yàlla ci biir réew mi ndax yàlla xañ nañu ay sulaha ndax xañ nañu nit ñi yàlla yiwal ba seeni jikko baax ndax yàlla xañ nañu ay ulama ndax yàlla xañ nañu boroomi xam-xam ndax yàlla xañ nañu sunniyin yàlla xam xañ nañu ndax ñu teg seen tànk ci sunna xañ nañu yàlla xañ nañu yooyu qualité. xam-xam amu ndax xam-xam amul ci réew mi. amu fi. amu fi an kay ñun nag ñu walbatiku rek ñu ne ñu xamu leen dara ñu ne yàng ne xamuñu dara. alxuraan ji fi nag alxuraan ja ca fi du benn la. ji ñuy jàng ci Sénégal moog dañuy jàng ca Kaaba ga benn. ñuy jàng wala laa lii na. boo yaboo sax nuy ko jàngee bu ñeene wala daa lii na ñun ñu ne wala laa lii na. yor na siinu siinu bilaal inda Allah. ndax bilaal dafa ñuuloon kukk suy prononcé buy tudd Chine. bu tooy xëpp am ñetti tomb da koy wax siin mu wow koŋ arab yi di ko ko ree yi weex yonent bi ne ree ji def leen ci ndànk siinu bilaal gi lu mu wow wow siin su tooy xëpp la fa yàlla buñu toroxal suñu bopp mel ne mag ñi ñu wala ñu fi nekk duñu borom yi xam-xam ni du tuutal boppam. waaye sëñ bi nee bu ñu toroxal seen bopp mel ni ñun amuñu mag ñu fi jaaroon mais ba yar nu ci lii mel ni nun melu nu nenn waaye nit ku baax du tuutal boppam. fa tabaarakallahu ay nit a ngi fi yoo xam ne jàng nañu fi. nee na fa tabaarakallahu nit yu jàngi ci réew mi ngi fi. soo demee ci universitaire yi. boo demee ci universitaire yi yore diplôme yi. ci français. ci tubaab. ak làkk arab ak lakaaram. du ñu leen mën al dara. du ñu leen mën mënal dara. ñun ñu xëy rek. ñun ñu xëy rek. ne duñ duñu dara. ne ñu dara. na ñu jéggi ñuy jàngal. na ñu jéggi ñuy jàngal. ana li fi mag ñi bàyyi woon. ana li fi mag ñi bàyyi woon. loolu mooy dox ci Sénégal. nee na looloo fiy dox. ragal koo wax wala ñeme koo wax. xanaa kay ragal a wax wala ñeme ña wax a fi ne kay. xam ngeen ne am na. waaye ñëpp xamandoo nañ ni loolu am na. bu ñu kenn soppil xadiisu rasulullah. nee na bu ñu kenn soppil xadiisu yonent bi. bu ñu kenn firil alquran ca na mu tëddeewul. bu ñu kenn firil alquran ca na mu tëddeewul woon. yàlla ne laa tabdiila li kalimaatillahi. yàlla nu ko tere day laa tabdiila li kalimaatillahi. looli. looli. bokk na ci jàngoro réew mi. bokk na ci jàngoroy réew mi. dana xaar Sénégal daal dafa mel ne ñi fi nekk woon jàngu ñu xamuñu dara. dara dara dafa mel ne ñi fi nekkoon daal ay xutumba lañ jànguñu dara xamuñu dara. kon nag. kon nag. yal nañ muusal ci loo xam ne lii koom-koomu adduna la ko tax a changé ak di ko wuti. waaye waaye yal nañu yàlla musal ci coppatiku soppeeku goo xam ne koom-koomu adduna lañ la jëndee wala nga di ko wut tax nga def ko.